demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xiim wasalla lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin wasalla lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين mu boole sëñ Abdou Lahad sëñ Aliou ak sëriñ Guèye mi moo ko booleeg sëñ Abdou Lahad mi ak sëriñ Guèye mi yónni sëriñ bi mooy màggalu Daaru Xudoos gi waaw nee gi ren day téeméeri lu at. waaw ren daa tombé mu am téeméeri at. waaw bi sëñ bi bi sëñ bi yéegee ak léegi. Hmm. waaw dafa toll ci ren téeméeri at. waaw hmm. sëñ sëñ bi nag waxoon mu mu mu màggal ko mu taxaw. sëñ Mountakha nag wax nañ ko yaatal lool. waaw sëñ Mountakha nag moo moo sant sëñ Ahmadou Mokhtar. Hmm. ne ko na ko yaatal na ko yaatal fépp. ñu am yéene euh, yaatal ko Ndakaaru ak Louga ak Diourbel. ñu am yéene yaatal ko Ndakaaru ak Louga waaye ak Njaaréem ñi nga xam ne fi la sëñ bi mujj feeñ lépp nag mooy jàng téeméeri ak ginnaaw sëriñ bi. lépp jàng téeméeri at yi gannaaw sëriñ bi. lu mu ñu jural ak ñekk ñu indi ñu ko indi Touba lu lu mu jëriñ Touba ak ak askan wi jullit yëpp. nee na jural ak indi gi ñu ko lu mu jural ak lu bi ñu ànd ñu wutu sëñ bi di seen liggéey ñu feeñal ko. ñu feeñal it njabootu sëriñ bi seen liggéey ak ñi àndoon ak moom di liggéey ak ñi àndoon ak sëriñ bi di liggéey ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall mel ni maam Cheikh kenn ku ne xam li mu doon ci yoon bi kenn ku ne xam li mu doon ci yoon ndax mooy buntub bi ndax mooy buntub sëriñ bi eh, fukki fan ñaar fukki fan nag lañ ko war a màggal lañ ko war a def ca njaareem ñaar fukki fan yi nag lañ ko war a def ca njaareem waaye fukk ak juróom-ñeent ya waaye fukk ak juróom-ñeent ya boo xoolee ci atum tubaab sax bis boobu la sëñ bi ñëwoon Touba nee na boo xoolee ci atum bis boobu la sëriñ bi ñëwoon Touba. sëñ bi nañ ko jagleel maam Cheikh. sëriñ bi nañ ko jagleel maam Cheikh nga xam ne moo ko moom. xam ne moo ko moom. ci wàllu sikkar lépp waaw. ci wàllu sikkar tudd yàlla ak taxaw ko bis ba lépp rek. moo tax mu ne ñëw yëgal ko sëñ bi. moo tax mu ne ñu ñëw ñëw yëgal si la ko. nga xam ne sa bis la. nga xam ne sa bis la. Baye Fall Baye Fall mën cee soññu mbooloo mépp ñu mën cee soññu mbooloom yëpp waaw ba ñu xam ne noon la ko sëñ bi bëggee ba ñu xam ne noonu la ko laa bañ laa kii rek ndax toogaay bi <laughs> waaw sant bañ lay roof la ak wér. nee na ñu ngi nga a baax. li ñu doon ci maam Cheikh. nee na moom li mu li mu doon ci maam Cheikh. nga xam ne sax mënuñoo wax ci moom lu sori. ne moom mënut a wax sax ci maam Cheikh lu sori. waaye maa ngi ànd ak sëriñ Abdou ak sëriñ Abdou eh, ñu ñëw wuuti fi sëriñ Cheikh Mbacke. ñu ñëw Serigne Cheikh Mbacke. mu Serigne Abdou Aziz mi nga xam ne moo jiite comité bi. mu Serigne Abdou Aziz mi nga xam ne moo ak Serigne Ousmane Serigne Cheikh Gaynde Fatma. Gaynde Fatma. ak ak ñi ci ànd ñëpp. ñoo waroon a ànd ñëwandoo fii. nee ñoo waroon a ànd ñoom ñëpp ñëwandoo. waaye dañoo aw ci beneen côté ñun ñu aw ci wet gi. waaye ñoom dañoo aw ci genn wet ñoom Mbaaw ci wet gii ñu ñëw fi nag ci ndigalu Baye Amadou Makhtar ñu ñëw fi nag ci ndigalu Cheikh Amadou Makhtar ak ndigalu Sëriñ Touba Cheikh Amadou Mountakha ak ndigalu Sëriñ Touba Cheikh Amadou Mountakha ndax bis bi ñor gum ko ñor ndax bis bi ñor gum ko ñor moom Cheikh Amadou Mountakha moom Cheikh Amadou Mountakha moo tax mu génn téeméeri million moo tax mu génn téeméeri million ni nañ ko waajale bis bi ni nañ ko waajale bis bi kon nag loolu rek moo ñu fi andi. nee na loolu rek moo leen fi indi. la ca war lépp def na ko. la ca war lépp def na ko. waaye ku ne xam na maam Cheikh. waaye ku ne xam na maam Cheikh. digganteem ak sëriñ bi. digganteem ak sëriñ bi. ni mu toll ci sëriñ bi. ni mu toll ci sëriñ bi. ak li mu doon ci sëriñ bi. ak li mu doon ci sëriñ bi. ak ni mu wonee sëriñ bi. ak ni mu wonee sëriñ bi. nga xam ne mooy buntu sëriñ bi. nga xam ne mooy buntu sëriñ bi. moo tax ñu fab bis boobu jagleel ko ko. moo tax ñu fab bis boobu jagleel ko ko. di ñaan ñu àgg ci jàmm. di ñaan ñu àgg ci jàmm. te mel ni mu ko bëggee. te mel ni mu ko bëggee. ci barkeem. ci barkeem jërëjëf jërëjëf Mbacke. si turu sëriñ Amdi Fall mi toog di sëriñ Modou di jëwriñ suñu maam Cheikh Ibrahima Fall jottali waaw sëñ bi nee sant na bu baax waaw jottali ab nuyoo akub siyaar waaw mu jaar si si jëmm ju tedd ji ak ñi ngi àndal jëm si kilifa yi nga xam ne ñoo ne sa kanam te ngeen ànd liggéey bi jàll si Cheikh Modou Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Modou Moustapha yàlla na yàlla yàggal ko te wéral ko jàll si Cheikh Modou Mountakha mi moom yoon wi moom bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal ñu ngi sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax di leen di dollee am mbégte waaye di dollee am yaakaar di fedd li yaakaaram ak pas-pasam si jëmmi sëñ tubaa xam ne Seera Faal moom la mu waxoon sëñ tubaa rek dana ko woon féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féete ak yow man mi la xam loolu foofu rek la Seera Faal masane jël léppam jox ko jëbbal naa sama boobu àddina ak àllaaxira sëñ laa daaxoon ku ku ku jaay lëf te yaakaar njëgg loolu génn sa loxo kon ba mu ko defee la wane ni moomatul jëmmam moomatul lu aju si jëmmam noonu la joxe woon boppam sëñ tubaa ni nga ko waxee léegi moo moo feeñal liggéey bi taxaw sëñ tubaa féete ko fa mu ko war a féete ba yoon wi tey jii képp ku si tàbbi te ñu bëgg nu tudde la ab murit da ngay dox doxin wu mel noonee mooy joxe sa bopp jël si yaakaar yëpp sëñ tubaa du ku nuy roy ku nuy yaakaar la ku nuy liggéeyal la foofu la murit yëpp nekk kon nag sëriñ baa ngi sant di gërëm ci cër yi nu ko jox fas yéene it noonu ko sëriñ bi bëggee mu ànd ko fas yéene taxawu ko ànd kook njabootu Seera gépp bu soobee yàlla fukki fan ak juróom-ñeent le 19 ci njaareem taxawaay bu fa war a am bàyyi ko si njabootu Seera Faal sëñ bi dina joxe ndigal njaboot gépp ñu def ko waaw bu soobee yàlla waaw sëñ bi dina joxe ndigal ñu taxawu ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee te diglee ko noonee incha allahu le 19 bu soobee yàlla. waaw <laughs> waaw <laughs> waaw ñuy sant tey sàkku nag sëriñ bi ñaanal ñaanal sëñ bi bu baax a baax ndax yéene yéene ji mu am si liggéey sëñ Tuubaa bii yéene ji kawe na lool bu bu koy wax sax nun ñii sax dañuy am jaaxle waaye dañoo xam yéeneem ni mu kawee si bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ay mébétam fa mu àgg si liggéeyal sëriñ bi ah yéen nag Mbàkke lépp ngi seen loxo ah ngeen ñaanal ko Mbàkke na wér ba lii mu yanu bëgg koo mu àggale ko fa mu ko bëgg a yóbbu waaw jërëjëf Mbàkke lam yanxuni daraw naari dunya waqtasani albaaxi bi xayri sunya malakani maa lam yabbi anni waxaadali baqaawo bil manni karaamati kitaabu man rafaani bi ilal jinaani musnafaani kitaabu man rafaani biilal jinaani musnafaani mahaama maatan xannaha nufuusa wali siwaaya damam nga umpuna mindeef te um kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq